bëccëg suba ak ngoon ñoo ngi daje ak sénégal yi fépp fu ñu mën a nekk muy bitim réew muy fii ba pare beneen bi mooy Mohamed dafa am loo xamante nii dañ koy def ci politique te ñëpp mën nañ ko seede gis nga tey ñun rek ñooy dem damay wax ñi may àndal ne leen fu ma mën di dem ci politique ci Sénégal hmm. invité leen ñëpp ma ñëw toog ak ñoom. amul xàjj ak seen. amul xàjj ak seen parti politique yëpp lay daje mais parce Sénégal bi ma bëgg gouverner à partir de deux mille vingt ko bëgg a dama bëgg parce que dama gis ne ay fissure politique dafa indi léegi ay fissure ci sunu ci sunu biir muy biir famille mhm. muy ci tarixa yi sax yenn saa yi ñu nemmeeku ko muy yoo xamante ni xamuñu ko woon ci politique donc ñun man dama màgg ci keppaar goo xamante ni suma mam ma koy gërëm di ko sant di ko rendre hommage dafa bokkoon ak ñeneen di defandoo politique bokku ñoon sax ay tendance parti socialiste waaye ñoo doon bokk seen grand place d'accord donc mën nañoo wuute ci politique. moi je veux moi je veux un Sénégal réconcilié. Mm-hmm. man dama bëgg Sénégal boo xam ne moo tax fu may dem ba keroog bi ma mujjee dem Madrid la section Pastef de Madrid dañu ñëw rencontré ma ñu toog waxtaan waxtaan ñoom ñu wax li nekk ci seen xol. Mm-hmm. wax li ñu bëgg ci Sénégal après nga ne au cas où maa ngi fi pour au cas où. Hein? après nga ne leen ngi fi pour au cas où. non dama ne len dama len ni rencontrer pour ñetti mbir. Mhm. bi ñu ñëwee toog ma ne leen. bu len jaxlé ci daje bi may daje génn. may len bu sénégalais la. Mhm. fuma ma dem sama xol day sédd lool. ma ngi nuy walé Jo Mbaye bi nga xamanteni moy mooy coordonné Pastef mhm. ma ne len fuma dem damay rencontrer sénégalais yi avec plaisir. donc bu donte Séné sénégalais lool sénégalais rek war na len daje. ma ne leen damay daje génn aussi parce que je suis un député de la République té député tu n'es pas un député d'un parti ou d'une coalition. tu es le député des Sénégalais. Mhm. beneen bi mooy mais ba pare vice président de la commission en charge des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mhm. donc menen je vous rencontre en tant que candidat à la présidentielle. Mhm. et si je, fi ñëwaat je damay ñëw pour en tant que président de la république. Si vous lan moo que sunu président yi dit lajj parce que bu ñuy wut fu ñu dem C'est waa kër rek la ñuy man ba Sénégal fu may dem dama naan ña may fekki serviteurs yi nekk ci terrain bi dama naan leen invité leen ñëpp. mais loolu par rapport Pastef Madrid xam nañ ne Pastef am na dool ci diaspora bi. est que loolu nekkul appel du pied maanaam au cas où bu nekkee Ousmane Sonko bokkul man maa ngi fi est que tamit tekkul loolu. bi ñuy politique ba tey Mouhamed dama wax ne man xam nga mag doo sàqamite sexo mhm. loolu nax sa bopp la Olof Ndiaye moo koy wax ñun sénégalais yi la ñuy waxal. biñu ñu di dugg ci politique jóguñu rek ngir jël sax doole jambour diko ko xeexee mm-hmm. ñi ñu voteel le 31 juillet 2022 dañoo xey di romb carte yépp di romb carte yi mm-hmm. ba ci serviteur ñu tànn ko muy 56303 voix nee naa la booba ba tey li tabbi ci liggéey bi te da ngay dajeeg nit sax mu ne léegi serviteur la mais nekkuma parrainé lu ma la voté lu ma la mais léegi serviteur la loolu la ñu gën a gis loolu moom mooy yaatu ci biir réew mi yëpp d'accord benn question pour clore chapitre bii nii xam naa ne question moom dana bett sax. yow fi nga jaar si presse yëpp jaar nga RTS 2 TFM fu nekk nga jaar fa toj fa mais seen TV rek laa lay gis. toj noo euh, mais man looloo ma jaaxal seen rek laa lay daanaka. waaw may may profité di rendre aussi. un hommage gis Walf du gis. Euh, may rendre TFM du ma la gis. may may mhm. parce que. Euh, journaliste la woon comme ñun nii rek. Mhm. Euh, xëy lancer son groupe de presse. Mhm. di góorgóorlu yemu ci bëgg di créer emploi yemu ci sax mu xëy dugg ci politique ak ni politique méttee. Mhm. donc ku mel noonu da nga koy rendre un vibrant hommage ñaan sunu borom mu gën ko dëgëral. Euh, ndax sikki sàkka wuñ ne bëgg Sénégal rek moo tax mu ne la mu def ci entreprise mën na koo def ci biir réew mi donc euh, Sen TV effectivement euh, dañu fay dem mais non lañuy ñuy demee fépp ah. man damay def émission euh, TFM yenn say yi ma dugg fa donte bariwul donc euh, yenn saa yi. aussi est que vous def comme ni def ni maag yow. waaw def naa def naa def naa hmm. face to face avec sama sœur Aïssatou Diop Fall hmm. donc ak yeneen émission am fa ay xarit yu baax ñom Cherif Dia ñoo xamante ni wax deug yalla euh, suñuy xarit lañ. suñuy suñuy doomu ndey lañ qui abat un travail formidable donc mm. man honnêtement. Euh, xanaa nit amoo jafe-jafe pour jàll si benn ja xanaa nit ñi am ak man jafe-jafe waaye ñun très sincèrement luy jóge ci ñun di di di lor kenn. Mm. ñaanuñu ko yàlla ndax jàpp nañ ne li jiitu ci jëriñ doomu aadama yi mooy bañ leen a lor. mais pas Diouf lan mooy sa bilan en tant que député. lan nga def ndax mës nga def essayer def benn proposition de loi. oui bien sûr def nañ ay questions écrites. Mm-hmm. adressé ko bon ministre yi boo bindee dañ lay tontu ah. même boo ñëwee en commission. waaw même boo ñëw xam nga le travail des commissions. Mhm. lu ci bëri gars yi duñ koy duñ koy fessel parce que huis clos lay doon duñ ko médiatiser. mais ça boo waxee ak ñoom li ñuy li ñu lay tontu mën na la bañ a satisfaire. le plus souvent sax du la satisfaire. mais ñoom foog ñu bind tontu la. Mhm. donc leneen li aussi mooy ci débat d' orientation budgétaire yi boo ñëwee commission. Euh, mbay mi ne fii laa ko bëgg a jaarale mhm. yow mën nga ne fii laa bëgg fii laa bëgg mu jaar mhm. bul fàtte waa nangam bul fàtte waa dëkk nangam bul fàtte waa caajaay bul fàtte waa Sessène bul fàtte waa Sañ parce que nit ñi dañoo am ay besoin loolu moo tax député war di def terrain parce que boo deful terrain topp télé yeeg rajo yi da ngay fàtte li nga xam am na ci ñoo xamante ni gisuñu seen i député ah, bi ñu leen falee ba tey mhm. gisuñu leen tey ji yaa ngi wax bi nga de l'obélisque may ñu la nga ñi fi mu ne nii dañu am jafe-jafe d'ailleurs parce que nit ñuy xaar ci biir réew mi te mënuñu dem daje ak ñoom kenn xamul nuñ toll donc terrain bi de un député doit faire du terrain loolu moo tax ñu lay jox carburant carburant boobu da nga ko war a lakk ci terrain bi tey jii foo dem man dem naa dëkk boo xamante ni Sessène la tudd wetu Caajaay xam nga lan lañ lay lan lan lañ fekk mu nekk seen préoccupation euh, Mohamed. Mm-hmm. Doodaan. Mm-hmm. soo demee foofu dañ ne la nit ñi. jéggi bi ci tatali bi oto yaa ngi rey nit ñi mhm. foofu comme ay muus ñu ne ñoom doo daan lañu bëgg gisuñu ku ñu ko wax mais kooku soo ma ko waxee man damay dem jégge ko boo demee hôpital bu mbuur mais ñun dem nañ fa fekk mu nekk dans des conditions désastreuses ñu wax ñu ko ñu jël loolu yóbbu ko ci kii bi beneen bi mooy ndoxu caajaay bi ñun dañ ci def ay jéego wax ko yëkkati ko bind laboratoire u caajaay laboratoire bu ñuy bi ñuy euh, opéré bloc mais boobu ñun ñoo def une lettre ouverte au ministre ne ko def ci ay ay safara keroog bi ñu ko defee safara chargé de communication maa ngi koy nuyu moom fajar la ma yónnee kii bi ne ma blog baa ngi nii gis nga daf ma yónnee vidéo xaw ma photo yi ne ma gis nga defar nañ ko te loolu suñu taxaw ak fépp ci wax naa la quartier jaminar boobu ci Saint-Louis comme Pikine 700 nga xamante ni c'est des quartiers yoo xamante ni dañ ko war a restructurer mu am un problème d'assainissement incroyable noonu la ñu amee jafe-jafe ci wàllu face boy bii ngay wax man dama dem get ndar fekk euh, gis nga image yi ñëpp gis nañ ko dama dem get ndar toog ak pêcheur yi kat yi waxtaan ak ñom lañ lay waxal seen bop ak lañu gis diko diko ragal quartier bu melni get ndar yalla sun borom dogal xalé yu bari di fa di fa yeewoo école primaire digne de ce nom sax amuñu ko poste de santé digne de ce nom sax amuñu ko sax sori encore amatuñu ñom Euh, fu ñu nappee ñu né ñun ñoo ngi ni mënatu mënatuñoo nappi licence de pêche buñu dawal buñu dawé 1 km ci biir géej gi ñu japp len wala soit ñu ñu. ñu def len parce que bi nekk Suède bi. exactement def len ay difficulté té loolu liko indi yëpp moy la gouvernance moy yor sa big rek japp né lu la neex mën nga ko signer xam nga damay fàttali toujours ne sunu stade Léopold Sédar Senghor bi 10 ans de licence de pêche lañu coûté. te tey jii boo jëlee ton bii rek ton bi nga xamante ni jaar na fi ñu ne jaar ñu ne jox nañ ko Union européenne mm-hmm. ton boobu tey jii boo ko jëlee cent onze francs le kilogramme la ko état du Sénégal jaayee Union européenne cent onze francs. waaw loolu moom lu néew la moom. xam nga bu ko bu bu bu demee Europe ba ñoom ñu tàggat ko ba indiwaat ko fii ci suñu mm-hmm. kii vingt trois mille cinq cent quarante cinq lañ ñu koy jaayewaat. kilogramme waaw. ñu doon jaayee cent onze francs. li ñoom li ñu jëndee. cent onze francs li ñu jëndee cent onze francs. vingt trois ñu koy jaayee bu le kilogramme. Mais xam nga lan mo ci gëna graw? Li ci gëna graw moy c'est plus de 200 200 fois le prix, 200 fois le prix. Donc accord yu mel non ñun japp nañ né tay ji buñu ci gorgolu won euh, accord 2019 yoy 10000 tonnes par an. Lolu suñ ci 10 won 10000 tonnes yoy xam nga ñaata la lay revenir Sénégal? 2 milliards par année. 2 milliards. Ñun japp nañ né té lolu dafa bokku ci sunu programme uh-huh. phare moy la renégociation japp nañ ne lu mu gatt gàtt mën na indil 111 milliards fi ñu am 2 milliards mën nañu fa am lu mu gàtt-gàtt milliards mën nañ ko ci am par année mais loolu xam nga ñun le talon d'Achille manam li nga xamanteni ni foofu la nit Afrique bi fi mbiri di soxé lu ci bari ci biir Afrique mooy la négociation damay waxtaan ak benn professeur bu nekk ENAM euh, mu ne ma xam nga pap jibril lan motax tax négociation nekk talon d'Achille mu ne ma moom dafa participer ci ay négociation mhm. bi fi président Abdou Diouf nekkee mu da ngay jël fi benn groupe Sénégal dem di négocier ji États-Unis par exemple mu buy dem juróomi nit ñoy dem juro. Mhm. néna bo démé da ngay fekk ci salle bi 50 américains toog jàkkaarloog yeen juróom 50 ba pare ci 50 yi chaque présence s'explique manam mhm. kenn ku bokk ci délégation bi da nga fa wara a am nga valeur ajoutée nga ñëw dajeeg juróomi nit ñëw juróomi nit yoo xamante ni soo moytuwul ministre bi mooy dem bu dee États-Unis du dégg anglais boo moytuwul mu yóbbaale chef de cabinet recrutement politique lay doon boo moytuwul mu yóbbaale assistant am parce que xam naa ne bëgg na ku koy defaral kafe foofu yóbbaale yóbbaale ba muy juróom boo moytuwul ñaari conseil technique lay am te buñ déggee anglais sax bëri na nga dem jàkkaarlook cinquante personnes toog jàkkaarlook cinq personnes mais négociation bi mais c'est plié d'avance day weng day weng mm-hmm. te tey jii loolu moo ñuy dal donc ñun suñu réew dafa war a saytu bu baax négociation dem jël borom xam-xam yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñii nga xamante seen xam-xam ci loolu rek la màcc et loolu mooy c'est l'un des jobs d'un président de la République un président on lui demande pas de travail, on lui demande de faire travailler les gens Mohamed si xam lan lay def fi mu ne nii bu soxlaa benn affaire ci Maroc danaan ban marocain moo ko dàq ci àdduna bi ñu ne ko moom le ma Atlanta mu ne bu mu fa fanaan réewam daf ko soxla bi ma fa demee fekk naa tunnel boo xamante ni dafa traversé biir Casablanca tunnel bu gudd mais ay entreprise marocaine rek ñoom ñoo ko defar te ci sept mois lañu ko liggéey noonu la ñuy relever le défi de la souveraineté alimentaire mm-hmm. parce que euh, Assane II daf doon wax ne xawma développement li ma xam mooy ne nit ñi lekk ba suur naan ba màndi ñun ñu am ay enjeux yu mag nag lekk bi ci la nit ñi di lekk ba suur di naan ba màndi di lekk li nga xamante ni moom la ñuy bay di ko liggéey te loolu mën naa nekk loolu su amee ñu génn ci paysannerie dem ci agriculture dëgg mhm. ñu jógee ci loolu dinañ mën a sax wàññi nit ñi dem hôpital ndax lan moo tax nit ñi bëri tànk hôpital parce que li ñuy lekk baaxul effectivement yàlla mal buuf donc tout est lié su fekkee ne nag danga am une agriculture boo xamante ni maîtriser nga ko jàng ci yeneen réew yi li ñu def ci agriculture nga moytu ko élevage nga keroog dafa am benn documentaire bu am solo bu may xool koo xamante ni bi Barcelone cinquante bet la ko bàyyil wax cinquante xar fi mu ne ci xar di marché. Mhm. marché bi suffisamment mais ñun tey corité depuis 63 ans bu Malek Mauritanie des ñu am problème alors que am nañ ci ñoo euh, suma mbokk yi nekk Linguère ak yooyu nga xamante ni loolu mooy seen aada mën nañ leen mais il faut que l'État ñëw en appoint jàppale leen ba nga xamante ni dañ naan ñun ambition bi ñu am mooy déwén moom duñu Mauritanie duñu Mali ñun ñoo koy liggéey te loolu xam-xam baa fi expertise baa ngi fi mën nañu ko l'essentiel c'est une volonté politique boo jógee ci autosuffisance alimentaire bi Covid jàngal ñu aussi Mohamed débat boobu gisatoo ko fenn fi mu sur la souveraineté pharmaceutique Covid moo ko jàngale. Mm-hmm. am na ñun yu ñuy jéggaani yoo xamante ni tey ñun war nañu ëppale suñu bopp di ko jéggaani 63 ans après les indépendances. donc beneen bi nga xamante ni intéressé nañu mooy njëkkanteeg waxtu bi mooy la souveraineté énergétique. Mm-hmm. yaa ngi dégg mooy la souveraineté énergétique tey Mouhamed bëri na petite et moyenne entreprise yoo xamante ni li leen di rey mooy facture courant bi xam nga woyofal bi man woyofal ba nga may gaañ. xoo ma ndax yow yow kese. woyofal bi woyoful <laughs> bi woyoful donc woyofal boobu. tey euh, ak courant bi ni mu chéré ménage yi sonn ci xam nga fii d'habitude sax bu ñu waxee courant ne courant yaa ngi coupé ménage yi dinañ ci sonn mais ñi ci gën a sonn souvent mooy ñi am industrie mm-hmm. ñooñu nga xamante ni bu coupure amee baaxul ci ñoom mais bu coupure bu leen coupure rayul lit facture bi ray leen mm-hmm. ñooñu jàpp naa ne la facture énergétique moo tax gaz bi ak pétrole bi réew yu bëri da ngay dégg sax ci débat yi yu bëri dañuy wax naan gaz bi liñ ci jaay buñ ko jaayee gaz li mu war a njëkk a lijjanti mooy sa facture énergétique nga régler ko d'abord permettre aux petites et moyennes mhm. entreprises de qui beneen bi moy mhm. bi am solo bi ma xamanteni japp jàpp naa amna solo na euh, industrie bi moy nan lañuy def ba li ñuy bay non en masse li ñuy sàmm en masse li ñuy napp en masse ñu mëna am nak une industrie maîtrisée aussi ba pareil industrie maîtrise boobu dang koy bolé tij ñu fexé nak am benn marché bo xamanteni ni bu am solo lay doon parce que tay industrie c'est très bien mais encore que il faut que nga am marché boo xamante ni foofu nga koy mhm. jaay et ñun le débat sur nos frontières là diggante boobu boobu jóge fii dem Europe daanaka moo gën a yomb jóge fii voyage biir Afrique mhm. loolu tam war nañ ko waxtaanee xam naa xam na boo gisee li xew Niger ak feneen ak feneen mhm. nga xam ne tey ak taxawaayu CEDEAO xam naa ne duñ duñ ci mën a wax ci diplomatie loolu tamit il faut que ñi nga xam dañu bëgg a nekk président de la République wax lan mooy seen xalaat ci institution sous-régionale yi parce que lu am solo la parce que ñun dañuy fàttali ne nous sommes pas des états nous sommes des micro-états dañ ñoo téye dagat dagatee ñu tey ji boo jógee fii dem Mauritanie da ngay xam ne même peuple bi la mm-hmm. man toog dem toog naa ci restaurant Mauritanie dama toog rek euh, ñu ne patron bi Pape Djibril Fall moo fi nekk daanaka euh, chef beeg euh, serveuse yi ñëpp daw ñëw mm-hmm. waaw kérok dama am sentiment ne ci suma biir rew la né je me sentais bel et bien chez moi bo demee guiné Conakry la même chose bo demee feneen la même chose doxna ci biir aéroport bu Mauritanie rek douanier ben douanière la ben soxna daal di yuuxu sama tour maa ngi naan waaw man lan lañ may wowe ni ba jàmm la <laughs> mais ndek après mu daal di may wax ci wolof bu set ne ma dama lay sétane bu baax xam nga c'est le même peuple mhm. même histoire donc war nañu xol nan la renforcer cette avec le voisinage mhm. cette coopération bilatérale mhm. ba mu deuguer ba nga xamanteni tay Mohamed Diallo bu lancer industrie ci biir Sénégal dina xamné amna marché bu yaatu bo xamanteni ni ko comme ni nga xamanteni Touba bi non lañu def am seen programme agricole commun dox ci ba am ci li nga xamanteni mom lañ ci am tay d'accord waxtu bi euh, mu ngi dab mais ñu wax ci migration irrégulière bi parce que sank euh, yaa ngi ko doon wax li xew face boy mais c'est juste li mujjé am. par rapport à une série de euh, ay ndaw yo xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ban gis-gis nga am par rapport ak loolu boo doon pointer li nga xam ne ni moom moo ko sooke at lan moo si war a nekk solution. mais wax naa la ko léegi xam nga yàlla dafa dogal bi ma fi mujjee ñëw immigration clandestine lañ doon waxtaanee. Mhm. suma ma est-ce que du dix 2019 mille dix neuf wala deux mille vingt. waaw côté waaw deux mille vingt la yaakaar naa. Mhm. avant Covid bi avant Covid bi la woon te loolu. immigration clandestine lañ doon waxtaanee jafe-jafe bi nga xamante ni moo ci am mu nekk jafe-jafe boo xamante ni nag approche bu globale nga ci am mooy li ma wax léegi c'est une mal gouvernance parce que tey économie maritime. ak diplomatie de loo sax laa ko mën a wax wala économie maritime loolu tey dafa nekk lu ama am solo boo demee tey dëkk yu mel ni euh, Maroc wala yeneen dëkk euh, tubaab yi dangay gis ne ñoom caaxaade wuñ ko boo demee dëkk bu mel ni Marseille nga fekk fa le vieux port gis napp lim leen indil gis seen port ba lim leen indil en terme de prestige ak dugal leen ci histoire boo demee ci yeneen dëkk Le Havre ville portuaire nga xamante ni dëkk yooyu boo fa demee da ngay gis ne fii kat napp moom. amna fu mu jógee ni seen mam yi doon nappe ñi bayeetuñ ni seen mam yi doon bayé ñi sàmmatuñ ni seen mam yi doon samé mais ñun fi man sama mam na mu doon bayee caajaay non la gis waa di bayé ba rien n'a changé L'ol moy régression bi gën mag donc walu nap bi Fass boy ñu leen di massaw di leen jalé bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom ñi ci génn aduna suñu borom xaré leen aljana waaye di wax ne ñun biñ ci alerté na tant que saafara wuñu ko tant que fexe wuñu ba ndaw ñi gis ci seen bopp régler li nga xamante ni mooy la question des euh, de la formation di leen gën a dolli xam-xam ci niñ koy defee des infrastructures parce que tey jii ba pare ñu ñu am benn droit d'inventaire tey jii Mouhamed kenn mënu laa wax te maa ngi lay ñaan boo fi invité ñu bokk ci nguur gi nga laaj leen ko mooy le pavillon sénégalais tey jii saxaar yi nekk ci biir géej gi suma mbokk mool yi xam nañ lan mooy saxaar mooy mooy mooy navire de pêche. Mm-hmm. kenn xamul kan moo leen moom euh, chinois yi turcs ak ñeneen ñi nga xamante européens yi ñoo indi tey navire yoo xamante ni di napp façon xeetu napp boo xamante ni sax tere nañ ko kenn ñemewu koo def ci seen réew yi du ñu bàyyi sax jën bi mm-hmm. dund ba màgg léegi soo ñëwee jël kooku boole ko ki nga xamante ni moom pêche artisanale gaalam rek la yaakaaroon saxaar yooyu ñooy mbëkk gaal yi yenn saa yi ci géej gi ñoo leen di rey lool loolu benn problème la ci biir géej gi bu ñu boo weesoo loolu ñu dem ba ñoom ci seen bopp amatuñu jën soo amatul jën xam nga man tey du ma dawal gaal xam nga man mënuma dawal gaal pour yóbbu kenn Espagne. Mhm. yow mënoo dawal gaal pour yóbbu kenn Espagne mais kan moo mën a dawal gaal pour yóbbu kenn Espagne ki daan wuti jën amatul jën ñu yàq géejam amatul kenn koo xamante ni mën na ko dimbali daje ak ñoo xamante ni tamit. li leen seen réew bëgg a defal mënuñu ko am mais ñooñu ñooy sàq di dem di dem ci di dem ci ci ci foo xamante ni lu gën a métti ak lu gën a tar lañu fay fekk. xam nga tey kii nga xamante ni euh, moo jógee Kédougou di dem di dem ci géej gi mais Kédougou kenn xale waru foon a génn di wuti dara li ñu am ci richesse fas booy xale waru foon a génn di wuti dara. ndax napp bi ndax napp bi. Mbour gii Mbour géej bi nga xamante ni ñun foofu lañ dëkk département de Mbour ñëpp dañu dañu buuroon wuti mbuur parce que y avait tellement d'opportunités de potentialité mais tey jii boo demee tourisme bi sax yàq nañ ko suuf si daanaka tey jii ay étrangers rek ngay fekk ñoom ñu jënd ko l'accès au foncier ñoo ngi doon wax léegi souveraineté alimentaire mënoo ko wax lu nit ñi dañoo am suuf te tey yomb na gis nga boo tukkee boo dee fenn bammel sax doo ko fa am sunu borom bu jëlee sa bakkan ci biti mhm. bammel sax doo ko fa am mais ñun fii xoolal tey nii l'accès en fossé ni mu yombe te ay nit ñooy toog rek fi mu ne nii waxuma la sax problème mu kër ne ndaw ñi dinañ am jafe-jafe pour am ko bëggoon naa trop ñu dugg ci logement social waxuma la sax ndax dinañ am problème mu kër mais Mouhamed dañuy am dinañ dem sax ba am problème mu bàmmeel bu ñu suul cimetière ay sëkk yu ñu suul. ndax suuf si ñu problème bi commencé na boo gën bi problème man seet si nañ ma plusieurs fois ma leen di nuyu. même Pikine problème Pikine xeex nañ ci ba suñu xolal ndaw ñooñu ak ñu nga xolal ndaw mm-hmm. ni ñu am énergie. mais ndawu Sénégal énergie ci consacré au même moment ndaw li ngay euh, compétiral mu nek Canada wala mu nek Rwanda wala mu nek fenen mom dooleem jooju mo ngoy consacrer ci numérique ci intelligence artificielle ci énergie ci ci ci centrale nucléaire ya jël xam-xamam yóbbu ko fofu yow ñu sa sa réew la baxé moy xex pour am ay seuk d'accord ki xex pour hmm. jël terrain bu mu footballé amna ñoom amuñu terrain bu footballer. footballé ci loolu la xex suba ngone ñi liñuy xex moy suñu sunu gis nga wa Ngor yi liñ doon xex moy souf dañoo soxla espace buñu def lycée. Hmm, hmm donc euh, il faut que loolu yëpp aussi jàpp naa ne. baax na pour ñu saytu ko. Mhm. xool ko joyanti ko. Mhm. te ñun bu ñu bëggee li tax ñu bëgg nekk président de la république en 2024. ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu bëgg a àndal c'est de pouvoir ñu jëli ressources humaines yi nga xamante ni Sénégal am na ko fépp. ni ma la wax ne léegi ne démarche bi ma am nii mooy fu may dem daje ak sénégalais yëpp de tout bord bu ñu defee président de la république borom xam-xam fu mu mën a ne li président Abdoulaye Wade defoon en 2000 borom xam-xam fu mu mën a ne dinañ la jëli pour nga ñëw régler problème sénégalais loolu moo tax. Mm. may lancer un appel aussi aux jeunes di leen wax ne métti na jafe na euh, waaye yaakaar am na yaakaar am na parce que kii di wax ak ñoom bëgg nekk président de la république ànd ko ak ñi ko àndal mm. jafe-jafe yooyu daf koy dund ak ñoom daf ko xam nekkuma koo xamante ni dama déconnecté avec la réalité dama koy dund wax naa la léegi woyofal bi ni nga xam noonu la ñu sonalee mënoon naa la wax ne noonu la ñu amee jafe-jafe ci wàllu logement social dinañ xeex pour ndaw ñi am ay logements yu accessible uh-huh. dinañ xam nga dëkk bii ñu ne nga am y'a qu'au Sénégal où la concurrence ne profite pas aux consommateurs am nga trois cimenteries avec la tonne de ciment ñaata lay jar fi mu ne ndaw yi Sénégal sax xamuñu tonne de ciment parce que ñemewuñoo sax laajte tonne ciment lu muy jar 74 mm-hmm. 000 dafa bari trop donc loolu lañ japp ne ay problématique la yo boo demoon ci fer bi la même chose les intrants mhm. pour dugg ci ki mais Mohamed lima bëgg wax moy am nañu yéene bu reuy pour changer mbiri d'accord am nañu bëgg-bëgg bi mhm. té japp nañ ne du affaire u njingox gars yi ils font du savantisme déviant mhm. un intellectualisme sans âme yaa ngi dégg mais mbir yi simple na jafewul te Sénégal li ñu am ak ñi ñu am. Hmm. suñu ci sukkandikoo mën nañoo soppi mbir yi. d'accord ñu jeexalee ak quelques points d'actualité euh, ñaari soxna Ousmane Sonko yi génnoon Dakar matin euh, euh, di wax di ñaanal njekk seen borom kër ndax teewlu nga leen ak ban réaction nga si am. waaw déglu naa leen nag mu nekk lu tiis gis nañu soxna yi sax soxna ànn Diamanka ak soxna Khadijatou Kebe. Mm waaye bi ma leen di xool dama xalaat ki nga xamante ni mooy wayjuram bu jigéen wayjuru Ousmane. Mhm. ci boppam ak ay njabootam xam ne situation bu difficile la lu métti la ñuy ñaan sunu borom ñu gaaw dépassé ko euh, te ñoom it li nga xamante ni moom lañuy ñuy sàkku euh, ñi nga xamante ni ñoo ci war a dox dox ci wax ci ba seen njàqare bi ñu mën leen ko teggil waaw donc loolu c'est appel boo xamante ni bu fekkee ne sama voix mën na jëriñ. ñoom damay damay jox tonalité ñoom seen njàmbat bi ñu am euh, pour xam ne soxna borom këram sori ko wëy doom euh, wëy juram sori ko euh, doom wëy jur bu jigéen surtout doomam sori ko dara gënu ko tiis donc noonu lay bàyyi waale xel aussi à toutes ces arrestations arbitraires ay xale yoo xamante ni ñoo ngi ci biir kaso bi ma am ci xarit euh, ñaar ñoo xamante ni. muy Fadilou Keita mm-hmm. bi nga xamante ni suma frère la muy Omar Bamba Diop. Mm-hmm. Omar Bamba Diop jamono bi dañuy am une pensée toute particulière pour moom ndax bu màggalu Touba jotaan da nga koy gis muy nekk ci plateau télé yi di def liggéey bu am solo euh, ci li nga xamante ni moom mooy wane liggéeyu Cheikh Bamba Khadim Rasoul tey sunu borom dogal mu nekk ci biir kaso bi ñuy réitérer aussi sunu appel euh, pour ñu bàyyi leen ñu dellu seen kër. Euh, dellu ci seen njaboot parce que boo nekkee soutien de famille nekk koo xamante da ngay taxaw sa njaboot nekk xale bu am énergie sa place du kaso sa place du kaso. d' accord situation Ousmane Sonko en grève de la faim euh, jamono ji yow euh, nan nga ko jàngatee ndax da nga koy conseiller mu mettre fin à sa grève de la faim. wala ban appel ngay lancé ci côté boobu. man du ma wax kenn muy xiifal. gis nga dama dugg politique pour xiif jóg gi jóge ci kaw ci Sénégal insécurité alimentaire bi donc ku koo xamante ni day xeex loolu mënul encourager kenn mu koy def té Ousmane ci boppam euh, wax na fi benn bés ne moom am na sax ñoo xam dañu bëgg a def grève de la faim mhm. mais daf leen ko tere mhm. donc noonu mu ko teree woon ñooñu ñun tamit noonu lañ ko koy di wax ne le Sénégal a besoin de son énergie et de toutes ses facultés te grève de la faim andul ak loolu amoon naa mbégte dalal la Pape Djibril Fall yan kàddu ngay tàggatoo. li may tàggatoo nag mooy lu loo xamante ni lu am solo la. Mhm. Euh, gis nga sëñ Mouhamed. Mhm. réew yëpp li ñu rawante bokk na ci la commémoration. Mhm. mooy rendre hommage. mooy delloo njukkal boo demee ca France ña ngi koy defal Jeanne d'Arc ñoo ngi koy defal euh, le général de Gaulle général de Gaulle. ñoo ngi koy defal ñoo ngi koy defal boo demee États-Unis George Washington Abraham Lincoln nag ñëpp. Euh, boo ñëwee ci Sénégal nag suñu borom baaxee ñu ci jëmm joo muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kérok le 10 août 1895 bi mi joggé Mbacké Bari néna da fay dox sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou nee na dañoo taxaw diko xol ba gisatuñ ko mom rek mu ànd. Mhm. pour répondre à l'appel du colon. fii ci Saint-Louis nga xam boobu dajee nag ñu bari ñoo xamante ni dañ ko jëlloo dañ ne ko il faut nga guerre ak ñi il faut nga xeex ak ñoom mu ne leen rek moo tax ñu may yóbbu parce que dama bëgg a yee askan ba ñu yeewu ba xam li xew sëñ Muntaxa dafay wax ne ku xam li xew rek fëx jóg loolu moo xam-xam nekk lu am solo sëriñ Touba daf ñuy ne xam-xam mënta ñàkk ci ñun ce ñuy tamit ne moom sa bopp moom sa bopp mooy kenn bañ laa note kenn bañ laa sa borom donc moom tamit loolu donc bi dem ci ci pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nit di nga ci rendre grâce sunu borom ndax jàpp nga ne dem bii ngay dem nattu bi ngay ngay dékku coono yi ngay dékku mooy nekk sa taw feexu réew ëllëg donc loolu nekk loo xamante ni jàpp naa ne euh, bés bu mel nii bu ñëwee euh, moom ci boppam mu ne bés bi bu dellu seetee na ngeen ma ci santale sunu borom. Mm-hmm. ndax xéewal yu ma ci yàlla ñu jël ko 1895 yóbbu ko Gabon. la nañ ko tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké donc loolu yëpp nekk lu tiis lu métti loo xamante ni man ak yow ak ñeneen mm-hmm. ñu bokk ci réew mi moo taxoon mu def ko donc ku mel noonu su ñëwee bés bu mel nii ñëw dañu ko war a rendre hommage delloo ko njukkal sant ko tamit amel ko devoir de reconnaissance et de gratitude. Mhm. ndax loolu yeb mu def lenen mbiru zahir bi sax waxuma sax batine bi ak dimension ésotérique bi waye zahir bi rek xolal ni muy ni màggalu touba di relancer l'économie. Mhm. liñ fay jaay ci ay xar liñ fay jaay ci ay nak liñ fay jaay ci liñu fay jaay ci consommation de façon générale. Mhm. le transport et loolu aussi ma ciy profité di wax ñi dem nañu dem nañu daw ndank dal ndank parce que aussi euh, dé mom dafa tiss li sëñ muntaxaa di wax ben nit rek bu dé ëpp na donc lool yëpp aussi war nañ ci bayyi xel euh, di santat bu baax kilifa diine yëpp di ñaan cheikh mohamadul muntaxa sun borom yagal ko fi mm-hmm. euh, di ñaanal kilifa diine sénégal yëpp sun borom mm-hmm. bayyi leen fi di wax né mm-hmm. sénégal nak sunu mag ñi rek lañu am nañ leen fonk sunu kër diine yi rek lañu am nañ leen fonk mom moy sunu mbax loolu lañu fi bayel. di wax né un autre sénégal est possible les serviteurs yi nek ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen lancer encore un appel ñu recevoir suñu équipe bi paré nañu ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, xëccoo li nga xamante ni moom mooy euh, bopp réew mi ci 2024 ñu tabb ñu ñu ñëw soppi Sénégal loolu jafewul xam-xam bi am na fi yitte ji am na fi yéene ji am na fi bëgg bi am na fi